zone bi nekkoon na barab bu kenn ñemewul woon jaar ndax rebelle yi nga xam ne ñoo fi nekkoon ci Ziguinchor commune bu Boutoupa Kabarakounda Adéane ak Sikun nekkee ci département bu Goudomp armée bu senegal amal fi ay opération yu yaatu jàmmarloo ak rebelle yi ba jële leen ci bërëb bi ñu doon amal nag saytu doon xoolaat bërëb yooyu le depuis le 25 euh, janvier 2021 euh, la zone militaire numéro 5 a conduit depuis le 25 euh, janvier 2021 zone militaire numéro cinq def nañ ay liggéey ngir nasaxal pexe ay euh, groupe rebelle yoo xam ne dañoo yor ay ngànnaay euh, te yàgg lool ci àll bi àll bi nga xam ne moo di Blaze ak Bissine ñu euh, amal fi nag ay opération opération yi nag li ko indi bokk na ci ñetti weer yi ñu weesu muy mois de novembre décembre ba ci janvier bi sonaloon nañ lool askan wi nga xam ne ñu dëkk woon ci wet gi yore ay ngànnaay di leen xoxotal bokk na ci la nga xam ne moo xewoon ca ñaaju nga xam ne ñaari ndaw yoo xam ne dañoo disparaître kenn gisatu leen woon ginnaaw bi ñaari weer ci lañ door a gis seeni néew ak it sonal goo xam ne rebelle yi sonaloon nañ ko askan wi nga xam ne daan nañ dem xam ne moo nekkee ci Toubacouta. donc ces deux événements majeurs ont suffi pour déclencher cette opération. bërëb yi nga xam ne moom lañ nangoo ci rebelle yi muy groupe yi nga xam ne dañoo yoroon ay ngànnaay moo di Badion Boumane Bilaas Busulum ci département bu jigen Ziguinchor ak Sikun ci département bu Goudomp base bi nga xam ne moo di Baaju nekkee ca frontière bu Guinée lañ fa fekk jéggi na dayoo di ay ngànnaay ak jumtukaay yu bëree bëri yoo xam ne rebelle yi moom la ñu yoroon ci bërëb yi lee Et mon bataillon était au premier échelon pour la conquête de Badian. Donc, euh, comme vous pouvez le donc Badian a été le 1er février passé. Et les résultats que vous voyez depuis le 25 janvier sama bataillon bokk na ci ñi amal opération bi fii ngir jëlee fii rebelle yi fii ci bajon bërëb bi nag ñu ngi ko nangu ci ñoom le 1er février 2021 bii rebelle yi ñu fekkoon nag jéemoon nañoo dëgër dëgërlu waaye nag ginnaaw bi lañ jàmmaarloo ak ñoom ba ñu daw daal di fi bàyyi seen jumtukaay yu bëri moo tax nangu nañ ci ñoom ay ngànnaay yu takku lool ay bali fetal yu bëri ay matériels yoo xam ne moom lañ daan toggee ay garab yu daan fajoo ba léegi nangu nañ ci ñoom ay ngànnaay yu ñuy wax ay canon B10 ay roquette RPG ay M203 lance grenade ay fusil d'assaut ak ñetti moto Jakarta lu jege ñaar fukki vélo ak juróomi charrette. On a reçu également, on a récupéré des munitions de 12-7. On a récupéré des armes comme un M203 lance-grenade. On a reçu, on récupéré également des FAMAS, des fusils d'assaut FAMAS, des moto Jakarta, trois motos Jakarta et une quinzaine de vélos pédales plus euh, cinq calèches, des charrettes euh, qui étaient utilisées pour euh, le déplacement de certains matériels. Donc euh, Les ânes qui servaient d'attelage ne sont pas trouvés sur place. Il y a également du bétail, des poules qui se sont éparpillées dans la nature. ci lu soriwul camp bi nga xam ne ay rebelle ñoo fi nekkoon ay tooli yamba yu bëree bëri la fa armée bu Sénégal daal di fekk bërëb bi li ko war bëri na ay villages yu fi nekkoon waaye ñoom ñëpp a gàddaay ndax rebelle yi. mais aujourd'hui c'est une zone où se développent beaucoup d'activités illicites. c'est pourquoi comme vous avez pu le constater. tout le long de de de. Sikun nangu nañ ko depuis le 5 février ci rebelle yi Sikun bu njëkk bërëb bu cosaan la woon waaye léegi gis ngeen bi ngeen di ñëw li ngeen romb yëpp ay tool yi yàmbaa yoo xam ne rebelle yi ñoo ko fi def tool yi yëpp nangu nañu ko ci ñoom noonu it la ñu nangoo bërëb yi nga xam ne moo di Boumane ak Boussoulou. la base de de Boumane ensuite 48 après nous avons la position de Boussouloum qui est l'Ouest. colonel Kandé mi nga xam ne moo jiite zone militaire numéro 5 nee na dootuñ may dara defkatu ñaawteef yi rawatina rebelle yi tolérance zéro la wax te it bërëb yi nga xam ne moom lañ nanguwaat ci rebelle yi mayetuñ leen ñu teg fa seen tànk. néanmoins ya y a des lignes rouges qui sont désormais tracées et sur lesquelles on ne voudrait pas que désormais en tout cas qu'un quelconque groupe armé ou bande armée euh, vienne les franchir c'est une exaction sur population sera tout de suite interprété pour nous, par nous comme une déclaration de guerre. Et sur ça, nous sommes intransigeants. Il n'est plus question qu'on accepte qu'on touche à un chevaux des populations. Voilà. Qui pour nous, après cette opération, et là le, nous avons également enclenché cette dynamique, c'est de nous rétablir sur la frontière. voilà avec la création de postes militaires. ginnaaw liggéey bi nga xam ne def nañ ko ci bërëb bi mayetuñ benn rebelle wala nit ku yor ngànnaay mu laal kawaru doomu aadama ci gox bile. koo ci mënti def danañ jàmmaarloo ak ñoom waaye ci liggéey bi taxawal nañ ay postes de contrôle yoo xam ne ñu ngi ko taxawal ci frontière gu Guinée bi. lépp ngir gën a saytu kaaraange gi ak dem beeg dikk bi. effectivement y a eu un grand concours qui a été joué par les forces de défense et de sécurité Bissau-Guinée donc nous rétablissons sur la frontière en créant des postes militaires au niveau de la frontière pour effectivement contrôler tous les points de passage qui sont non officiels et par lesquels transitent tous les trafic illicite et par lesquels également transitent pamal mal de marchandises produits. liggéey bu am solo bi nga xam ne nag moom la armée bu Sénégal def ci Ziguinchor sabab gi bokk na ci jàppale askan wi nga xam ne ñëw dëkkee woon ci bërëb yi ñu mën a waat ci seen dëkk yi tàmbali seeni activité ci kaaraange gu wér. armée bi noonu lañ fas yéenee xeex lépp loo xam ne dafa jëm ci trafic bant muy dénk ak yamba ji nga xam ne daan nañ ko bay ci bërëb yi